mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndax ñun si rajo Rewmi FM dimanche bu jot. ni lañ koy fas yéene di def fii ci rajo Rewmi ci émission gox bi ñuy nuyu rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk auditeurs yi ak auditrices yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internet yi di leen nuyu di leen sargal bu baax a baax ci julli gi nga xam ne nag euh, jóge nañ ci di leen ñaan rek ñu baal ñu nu ñun baal nañ leen bu baax a baax ñu fekke ko ay déwéni déwén tey nag euh, ñu am ci ab euh, mbégte di ci dalal ki nga xam ni moom moo di Moussa Fall nekk président mouvement fële nga xam ne moo di ca diwaanu Grand Yoff jiite itam benn plateforme bi nga xam ni taxawal nañ ko yàggul dara moom la ñu am mbégte daal di waxtaan ak moom du yàgg dara dama koy bàyyi rek mu daal di nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk auditeurs yi ak mbokk internet yi. Ah, Moussa ñu ngi lay nuyu. jërëjëf monsieur Dramé maa ngi lay nuyu bu baax. Mhm. di rafetluwaat euh, invitation bi. Mhm. di profito ci ocasion bi comme ni nga ko defee ci sa njëlbeenu wax. Mhm. di ziar euh, sénégalais yëpp bépp auditeur ak internet bi déglu émission bi di fidèle auditeur rajo mi FM. maa ngi lay sénégalais yëpp maa ngi leen di ziar di leen baalu ak ci bis bi nga xam ne jóge nañ ci mooy bisu tabaski. Mhm. Euh, di rafetluwaat bu baax. Euh, euh invitation bi. Mm peut-être dinaa relever rek benn lapsus. bi am bi ngay wax kàddu. Mhm. jiitewuma plateforme bi. plateforme bi amul njiit. ci la waaw amul njiit laa bokk. da ngeen dajaloo rek waaw dañoo dajaloo mais jiitewuma ko. Mm-hmm. Mm-hmm. plateforme bi ay leader yu daje. Mm-hmm. Euh, teg cadre politique fas yéene. mais dina euh, am ci élection bi incha allah dina am ku ko jiite. Euh, mais jiitewuma ko. donc présentement amul coordonnateur. donc donc amul dañuy daje rek ensemble. joxante loxo pour ànd liggéey. am na solo éclaircissement yooyu noonu dañ koy dooree rek si waxtaan bi ak Covid 19 cas yi nga xam ni gis nañ ko fa. fan yi mi ngay gën di yokk mi ngay gën di jéggi dayoo ni tey hmm. fukk ak ñaari décès lañ ci am ci covid 19 bi hmm. li ni mel nag mi ngi xaw a jaaxal nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di médecin yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorité yi lan nga ñu mën a wax tey ci cas yi nga xam ne mi ngi yokk tey ci covid 19 bi waaw situation bi am vraiment situation bu bu bu critique la très difficile et très compliqué. Mm -hmm. parce que gis nañu euh, troisième vague bi ñuy wax variant delta. variant delta vraiment euh, dafa ñëw euh, ak situation bu fekk ñu. Mhm. Sénégalais yi bàyyeeku bu baax ci Covid bi. Mhm. donc te gis nga dañuy dépasser ay sept cent cas huit cent cas douze morts. Mm -hmm. donc doon na loo xam ne tey kenn ku ci nekk war nga xippi sa bët. Mhm. indiwaat sa xel ñu jéem jël ku nekk sa responsabilité individuelle. Mhm. Euh, ñi fexe ku nekk aar sa bopp. Mhm. Euh, parce que euh, ni mu attaqué maintenant mi ngi laal sa jeunesse bi. Mhm. jeunes yi sax. vague yi première vague deuxième vague sax. doon na épargner jeunes yi. doon leen daane mais lii da ngay gis sax ay jeunes. dañ leen di song te mu doon situation boo xam ne ñëw na fekk situation. sanitaire bu compliqué mm -hmm. parce que centre yëpp fees na man qui vous parle j'ai benn parent ci julli gi on a fait le tour des hôpitaux au niveau ko yóbbu donc je pense que situation bi c'est c'est compliqué mm-hmm. et cinquante et quelques cas graves mm-hmm. donc euh, plus de presque mille deux cent morts fel mm-hmm. fañ toll actuellement situation bi euh, xaw na doy waar donc kenn ku ci nekk war nga xool sa responsabilité individuelle nga aar sa bopp confiner wu sa bopp fexe ba respecter les gestes barrières. Mhm. takk masque moytu dajaloo yi vraiment di dàndante. Mhm. donc loolu bokk na ci ay taxawaay boo xam ne kenn ku ci nekk d'abord. Mhm. moo war a nekk sa xeexu bopp. ci sa gis-gis lan moo war a waralaat kaa yi jóg parce que dem nañ à un moment gis autorités yi ñoom ñi nga xam ni waroon nañ gën a taxaw temm ngir joxe euh, anam gu rafet mais ñoom leen gis ñuy dajaloo ñenn ñi sax jàppee ko tournée économique. opposition pouvoir ñoom ku nekk di demalante euh, est-ce que mbir mi tàmbaliwul foofu. bon soo xoolee jàggat bi soo xoolee message bi mënatul jàll parce que tey population yi dañu imputer faute bi nos gouvernants parce que tamit gouverner c'est prévoir. dañu nekk ci moment de pandémie de 2 février 2020 jusqu'à nos jour mmh. certes. am na accalmie. Mhm. benn moment dem nañ ci deux mille euh, deuxième vague bi mu am mhm. accalmie ñu am ay trois trois cas quatre cas. Mhm. mais accalmie du du du du. lu nekk fi nekk fi donc gouvernement bi euh, vraiment dañuy def ay manquements. gouvernement bi dañuy manquer de prudence. et je pense que tamit euh, dañ leen imputer mbir moomu parce que tamit euh, tey dafa tombé mooy tere ay gaaf ah. Mhm. te loolu ay du njabat. Mhm. parce que tey gis nga bu ñuy jógee tey ci tournée économique yi ci la ñu am situation bi. Mhm. donc euh, askan wi tamit jàpp nañ ne lu ñu waroon moytu la jàppoon naa ne vraiment nos gouvernements daf nañ ay manquements. ci seen taxawaay ci xeex bi. moo tax président de la république su waxee sax Sénégal yi dootuñu ko déglu. Mm-hmm. parce que dafa am rupture de confiance entre euh, euh, nos gouvernants et la population n'est-ce pas. Mm-hmm. donc ñun suñu wàllu bopp léegi war nañu xool yeneen levier la ñu war a am. Mm-hmm. pour communiquer pour askan wi. xamaat delluwaat seen bopp parce que ñu si bëri dañ jàpp ne wax bi waxi politique la waxi caaxaan la te ek c'est une maladie qui est réelle qui est là de de terrasser euh, bon demal cimetière Yoff euh, ku dugg génn plus de quinze dañuy am lañ fay denc par kenn xamul lan la te daanaka tey boo duggee dans tous les foyers nit ñaa ngi si sibbiru dama yaramay métti et tout ça Covid bi la. Mhm. loo xam ne parce que ni muy wàllantee dafa gaaw. Euh, nos médecins avaient averti mais nos politique on fay à à à, à leur devoir parce que tey état moo war a yore sécurité moo war a jiitu je pense que tournée yooyu. Mhm. lu ñu waroon mën a éviter la. waroon ñàkk jël nañu fii ay plus de cent cars di ko mobiliser di ko yóbbu ay Fouta Thiès fu ne ñu dem fa. Mhm. je pense que bu ñu fa jógee gis ngeen ne. Mhm. Euh, jeunesse bi sax la njëkk a attaqué te jeunes yi ñoo doon dem ci mobilisation yooyu. Mhm. te donc gis nañ ne Dakar fii ci loolu la mbir mi doon. état ba léegi. mi ngi jël ay responsabilités parce que xamul ban mesure lay jël ndax confinement est-ce que dañ delluwaat ci couvre-feu mais je pense que euh, vraiment dañu dañuy woo askan wi kenn ku ci nekk nga xam ne feebar bi am na nga jël say responsabilité aar sa bopp aar sa njaboot te tamit euh, faire un appel à tous les acteurs politiques de ce pays parce que tamit c'est pas un combat de Macky Sall c'est pas un combat de l'État c'est un combat de tous on voit l'op euh, les, les, les députés dans, au niveau du Parlement députés de l'opposition des leaders de l'opposition qui sont là et je pense que ñoom tamit il doit s'engager à, donner un message pour que Sénégalais yi euh, mun a jël seen euh, taxawaay donc on waruñu xaar opposition bi wala yeneen homme politique yi ci ay combat politique on parle que de code électoral on parle de et mais voilà la cette situation sanitaire qui inquiète tout le mone mmh. dañu war a laaj bépp responsable politique des cadres yi nga xam ne tey bu ñu waxee je prends un cas comme Ousmane Sonko. Mhm. su génnoon wax. Mhm. tous ces jeunes là qui sont dans les réseaux sociaux su génnoon ne ñëpp mhm. pense que tous bu ñu bàyyi xeex bi Macky Sall xeex bi du président Macky Sall. xeexu askan bi la je pense que. sëriñ si wax nañ ba sonn donc je pense que ñoom tamit kenn ku ci nekk war nga mën a taxaw. def un geste publier takk sa masque donner un message à ces jeunes. peut-être pour redonner confiance à cette population. Mm-hmm. parce que population bi dem nañ ba am nañ benn euh, défi jiixi jaaxa diggante ak sunu gouvernant yi mhm. euh, amatu ñoom euh, benn gis-gis amatuñu benn gëm-gëm mhm. parce que tamit ñoom ñoo fay à leur mission kon tey naka lañ war a def tey ba li nga xam ni moom moo jëm ci jàngoro bi confiance bi mun a dikkaat ci diggante askan wi ak gouvernement bi ñu rétablir confiance ba bu ñu leen waxee mun leen dégg acteur politique nga itam tey yaakaar nga ni gouvernement ban mécanisme la war a mën a indiwaat ngir amaat kóolute askan wi bon xam nga nous des politiques xam nga actuellement euh, ci ñun ci xeexu mbas bi am na taxawaay bu ñu ci def. Hmm. ci deuxième vague yi dem nañ sensibiliser may ay masques mais xam nga loolu dafay am foo xam ne boo fa tolloo tamit dañu war a xoolaat yeneen levier. Hmm. lañ mën a xam nga dama la tudd ay hommes politiques. Hmm. parce que su ma la nee. diw ak diw. ñoom ñaar rek nekkuñu fi. mais parce que lu tax ma tudd leen c'est. il faut pas am na lu ñuy jëriñ ci seen taxawaay seen waa seen taxawaay. Euh, surtout par rapport à la jeunesse. seen taxawaay moo tax ma la koy wax. donc euh, kii. mi ngi dox di wax damay tibb tànk. Mhm. mais tey xeex corona moo taxaw. Mhm. <laughs> n'est-ce pas. Mhm. fi toll yi ñoom ñëpp tibb tànk corona tibb tànk korona man je pense loolu laa wax Ousmane Sonko on dit que avec les jeunes. su waxee jeunesse bi ñu koy déglu dans les réseaux sociaux les jeunes ñi ngi ci moom. et donc dafa bokk ci réew mi xeex bi xeexu Sénégal la te dañ leen ci soxla. ñi génn euh, wax la xam ne askan wi danañ mën a indiwaat seen xel. comme ni ñuy ñaane sëñ Muntaxa mhm. wala sëñ Mbay Si nga xam ne moom boobu ba léegi sax dafa tëj jàkk yi mhm. parce que loolu doon il a ses raisons il a ses raisons mhm. il a raison sur tout le monde <laughs> tey sëñ Mbay Si Mansour il a raison sur tout le monde parce que jusqu'à présent tijjiwul sax officiellement benn jàkka donc moom waroon na ne xeex bi ñi ngi koy xeex on est en guerre mais tey guerre bi euh, jeexagul te tey li bees mooy gouverner c'est prévoir dañuy nekk en guerre mais dañ dem ba ci biir ñun amatuñ amatuñ ay munitions. Mhm. parce que li tax tey nga mën a xeex guerre bi mooy dañ dem ñàkku ñu toog ba ci ba moment boo xam ne am nañ ay rupture mhm. ñi defoon première dose bi sax pour ñu ñëwaat am seen première dose ay problème la mhm. donc on avait on avait plus de munitions en pleine guerre donc gouverner c'est prévoir donc mais l'État fait beaucoup d'efforts mais je pense qu'ils doivent être redoublés d'efforts pour être beaucoup plus vigilants sur certains détails mesures ñu indiwaat bàyyi ko ñu dund ak virus bi aar euh, sensibiliser askan wi ngir ñu dem ñàkku ji. non non non je pense que je pense que confinement couvre-feu il n'a plus raison que ñu indiwaat ko parce que tey nous avons une économie très fragile. économie bi nga xam ne quatre-vingt-dix pour cent c'est sur de l'informel. Mmh. les Sénégalais ils vivent le jour le jour. donc je pense que il faut appliquer des mesures. Mmh. il faut que que le président de la République. a eu le courage de prendre des décisions fermes. c'est-à-dire sur Dakar où Dakar moo gën a strict. Mhm. que les gens prennent des, virus, ah, oui. que les gens prennent des mesures. Mhm. Oh, il y a le ministre des Transports il a sorti un arrêté. Mhm. port masque obligatoire. mais c'est pas respecté. la police ne joue pas son rôle dans ça da ngay gis car rapide da ngay gis Ndiaga Ndiaye da ngay gis peut-être euh, les Dakar Dem Dikk plus gens. mais car rapide yi Ndiaga Ndiaye boo duggee nit ñi masque. et donc la police dañu war a arrêter bépp car transport. bu takkul masque. Mhm. ñi sanctionné la n'est-ce pas et puis il faut même sortir les on avait on avait déployé les forces de l'ordre mhm. pour xeex couvre-feu et tout ça pour xeex y en a ils sont là. Mhm. il faut le sortir pour dissuader les populations. il faut que le ministre de l'Intérieur qui a sorti poste porte de masque obligatoire au niveau des marchés. qu'on met les forces de l'ordre pour un peu dissuader les populations képp koo xam ne yaa ngi dugg ci marché yi nga takk masque bu ñu jëloon dis policier bàyyi ko ci marché Grand Yoff ñuy veiller pour ku ñu gis takoo masque ñu jàpp la sanctionné la bu ñu ko defee benn fan ñaari fan même jigéen buy dem duggi marché dina prévoir su ma demee ci marché su ma takkul marché du ma dugg voilà les mesures euh, qu'il faut prendre et c'est de faire des confinements personnels takk nit ñi forcer leen ñu takk marché yi takk masque ci oto yi nest pas et puis wàññi xew yi ngénte yi ak yu bëri ñi xaw ko wañ est-ce qu'on on peut pas euh, Des rassemblements. Un show mm -hmm. à Walisek, à Kaolek, mm -hmm. où l'épicentre de la maladie est à Dakar. Et on laisse des gens organiser des soirées. ça c'est c'est pas compatible n'est-ce pas il faut que l'État prenne ses responsabilités mhm. parce que l'État moom moo war a gérer sunu sécurité ñu ne itam euh, solution bi fi nekk alternative bi mooy vaccin bi parce que dañu gis ni à un moment donné bañoon nañ mais gis nañ sénégalais yi ñu ngi dem di wëri vaccin yi pour mën a vacciner wu aar seen bopp est-ce que jàpp nga ne tey c'est mooy solution bi oui man jàpp naa ne mooy solution parce que médicalement wax nañ ne soo ñàkkoo peut-être doo egg ci mhm. bi ñëpp ku ci am possibilité mun a jot ci ñàkk yi nga dem ñàkku ji. Mm-hmm. parce que loolu mooy li nga xam ne moo la mun a aar ci feebar bi ki nga xam ne tey ñàkku nga peut-être bu feebar bi yegsee ci yow. Euh, ni mu la mënoon yóbbee ci état de coma doo fa hmm. yegg hmm. donc daal di ñaax euh, nit ñi ñi ñi ñi ñàkku ji hmm. et puis vraiment état bi tamit góorgóorlu na ci vaccin yi parce que tamit bokk nañ ci dëkk yi Afrique yi nga xam ne président moo njëkk a jël vaccin indi ko ci réew bi loolu c'est à saluer donc ñi gën a baral ci liggéey boobu on a reçu par euh, l'intermédiaire d'une coopération avec les États-Unis Johnson and Johnson Johnson and Johnson ñi gën a yokk dose bi ba nga yokk quantité bi ba nga xam ne sénégalais a Euh, jot say vaccin parce que tamit au début les gens étaient un peu réticents parce que mhm. tamit euh, publicité bi mhm. malsaine bi amoon mhm. ci vaccin yi et puis on a vu que bi muy ñëwee c'était les privilégiés ñoo njëkk a ñàkku <laughs> n'est-ce on a vu euh, un ministre de la République net moom du ñàkku parce que dafa bañ a wone ne ñàkku yi pour benn classe sénégalais yi ñoo ko am. Mhm. je parle un ministre comme Oumar Youm il a <laughs> dafa bañoon ñàkku parce que mhm. dafa meloon ne. Mhm. y a des privilégiés ñoo moomoon ñàkk bi. le sénégalais lambda bokkuñu ci mais maintenant c'était pas ça. maintenant ñàkk yi ñëw nañ. Euh, amoon na rupture mais nañ fexe ba vraiment liñ ci mën a am rek. ñàkk le maximum. de sénégalais moom mooy doon solution bi gën sénégalais nag kenn ku ci nekk nga jël sa responsabilité boobu. Moussa Fall président mouvement Sénégal sunu yitte moom la ñu invité fii comme gan ci émission gox bi nara waxtaanee lépp loo xam ne nag aju na ci euh, Grand Yoff ak li ko wër mais Moussa Fall yëg nañ ni euh, fa li nga xam ni moom moo di Grand Yoff yéen euh, si provi si mouvement Sénégal sunu yitte mouvement bi ba nga ko taxawalee ba tey bànqaas bi ndax jàpp nga ni am na yokkute ci biir Grand Yoff tey. non bu baax a baax. Euh, waxuma Grand Yoff sunu yitee dama ne Sénégal suñu yitee c'est-à-dire euh, ni ma ko waxee woon euh, bi ñu ko lancé en 2017. Mhm. dañ ne mouvement bi dafay yem ci région de Dakar mooy ci les quatre villes. Mhm. yu composé région bi ci la ñuy commencé yem. Mhm. mais fii nag ba élection locale yi ñëw parce que dañ ko jàppoon en deux mille dix neuf. juin deux mille ñu ne woon suñu doole yëpp tey dañ koy consacré Grand Yoff bu ñu génnee nag ci élection locale dañuy dem ci élection députation. Mhm. léegi boobu baax dinañ gën a génne taxawaay au niveau de la ville de Guédiawaye de Rufisque et de Pikine. Mhm. tey jii boo demee ville de Pikine da nga fa gis ay communes yoo xam ne carte Sénégal suñu yite mi ngi ci. Mhm. tey jii commune bu nekk dañ fa fas yéene jaay lu bon bon cent cartes boo demee ci commune de Pikine mille six cent cartes lañ prévoir jaay ko ci Pikine mooy commune bu ne danañ fa jaay cent cartes. muy mille six cent cartes boo demee Guédiawaye dañ fay jaay. cinq cent cartes commune bu ne cent cartes boo demee Rufisque ni jaay fa trois cent cartes au moins commune bu ne am trois cent cent cartes ñi commencé ko commune bu ne ñi def fa cent cartes au niveau de Grand Yoff moom jaay nañ fi deux mille cartes parce que tey dama xool sama élection bi ma fa jógee man bi ma jógee deux mille quatorze j'avais à peu près mille voix personnelles donc je me suis dit que peut-être nañu jéem a multiplier ko par deux mhm. mooy def nañu vingt cinq j'ai eu vingt cinq responsables. Mhm. Euh, des femmes et des jeunes kenn ku ci nekk jëloon ko vingt cinq cartes nga jaay ko. Mhm. donc su nekkuloon Covid bi monté nañ cellule yi bu yàgg. donc mhm. au fait Grand Yoff daal moom placé nañ deux mille cartes moom. mi ngi ci loxo doomu Grand Yoff yi. lu ñu jaay la te dama ne Grand Yoff ki ngay jox jaay kat doo ko ko jaay ci mbedd su ma ko soxlaa damay fekk ba ci këram te loolu déjà ñi ma koy won benn par benn. ok Moussa Fall lan mooy yitte tey Grand Yoff bu jàmp a jàmp tey lan la. yitte Grand bi gën a jàmp. mooy fexe ba Grand Yoff doon commune boo xam ne dafay neex ci dégg dégg lañu fay dëgg ci ay meurtre mhm. mu wàññee ko fa mooy problème insécurité mhm. euh, bien que état moom moo ko yor mhm. moo yoree affaire sécurité mais tamit commune du toog croiser le bras ne état moo ko yor rek di xool li tax ñi indi gouvernance locale mooy avant 96. dañ doon wax commune de Dakar dañ doon wax le maire de la commune de dakaar n'est-ce pas ñi génn commune d'arrondissement. Mhm. on ne parle plus de maire de la commune de Dakar mais on perd le maire de la ville de Dakar. Mhm. mooy ci la indi commune d'arrondissement. Mhm. en kenn waxatul. Euh, euh, léegi ñi commencé génn ci commune à plein exercice mooy acte trois. gouvernance locale li ko indi. collectivité locale li tax mu juddu mooy gouvernance de proximité. Mhm. mooy état am na lu mu yoroon mu jël ko dénk ko gox goxaani pour que les gouvernants jege seeni population. Mhm. même bu nekkee compétence sécurité eh, eh, commune yoru ko mais war nañu mën a càmbar ba xool gox bi. Mhm. lan la ñu mën a accompagner ak yenn proposition la ñu mën a indil état pour que ne ko lii bu ñu ko defee mu mën a fexe mu dem. donc la question. de la sécurité est une question transversale. Mhm. soo ko waxee dangay ngay laal une question économique. Mhm. dangay laal question de l'emploi des jeunes. constaté à Grand Yoff tu prends un quartier comme Arafat. Mhm. qui n'a pas d'école primaire. ah luy problème bi. tu voilà c'est manquement à Grand Yoff. tu vois Grand Yoff on maintenant on se glorifie que Grand Yoff am nañu lycée léegi. te am nañ commune boo xam ne amoon na réserve foncière bu mag a mag a mag la zone de captage. et de zones où on pouvait avoir trois lycées à Grand Yoff li lycée Limodag mi ngi fii mhm. am na beneen lycée parcelle am mhm. na mhm. deux ou trois lycées ou parcelles et grave on vient d'avoir notre lycée ici ci Talibou Dabo donc ce manquement là beaucoup de jeunes seen jàng dafa teel a taxaw parce que tey dañuy tollu benn moment boo xam ne dañ doon war a génn di jàng ji seen parents yi amuñu doole pour téye leen xale yu bëri Grand Yoff seen jàng CM2 lañ yem école bi xale yi liggéeyuñu xale yi amuñu formation te bu ñu xëyee gis seen yaay teg table ci mbedd bi di jaay situation kër gi nekk fa donc bëri na ay situation yoo xam ne. Mhm. c' déplorable donc la mhm. question de la sécurité à Grand Yoff touche d' abord. Grand Yoff est à maintenant mhm. Grand Yoff agglomération bu mag a mag a mag la. nee na parce que maa ngi gis mairie bi saa boo leen interpellé ñoom dañ ne bind nañ ngir ñu defaraatal leen beneen commissariat. waaw mais ça ne suffit pas. Euh, avoir cinq commissariats. ne règle on essaie de de euh, d' intégrer ces jeunes à Grand Yoff et moi je dis l'image qu'on donne à Grand Yoff chaque cent mètres il y a un bar non ça vous venez à Grand Yoff vous benn xadara bu teg Grand loolu moo fa ëpp foo romb guddi ajuma beneen bëccëg ñi ngi laal seen malaan di tagg yonent bi l'abbé bi église baa ngi doxal non on ne présente pas Grand Yoff comme Grand Yoff chaque cent mètres y a un pas y en a il faut pas il faut pas le nier mais sa du doomu Grand Yoff yi ñoom ñuy dugg ci bari di naan non non non les Grand Yoff même bu ñu def naka su noonu peut-être danañ ko lijjant ci benn alimentation benn boîte dem toog seen ruq di ko def mhm. mais problème bi daal mooy nañu fexe ba jeunesse bi ñu jéem leen a encadrer utal leen formation utal leen xëy. Mhm. jàppale leen te loolu dina fexe insécurité bi xaw a wàññeeku. est-ce que président Moussa faal ak mouvement bi mu jiite mi ngi xalaat ci utal naam utal xëy day xaw a métti mais yéen a ngi accompagner jeunesse bi pour ñu am ay xëy. mais ñun suñu première action bi ñu def bi ñu créé mouvement bi. la jeunesse de Sénégal suñu yite première action activité de de ce mouvement c'est on a organisé la jeunesse Euh, présidé ki ko organisé woon mooy professeur Djibi Diakhaté mhm. moo ko def au centre social de Grand Yoff loolu lañ njëkk a def comme activité mhm. mooy il faut grand les jeunes suñuy doom lañ il faut les encadrer il faut les écouter il faut il faut il faut ñu am compagnonnage ak jeunesse bi ba xam mhm. lan mooy seen seen problème donc ñun on a on et on est un mouvement de contribution ñun du ñu nekk rek di wax lii baaxul lii baaxul mais on essaie d'amener euh, des solutions pour régler certains problèmes nest

peut-être de 2014 avant 2012 2013. ni ñu doon déggee Moussa Fall Grand Yoff c' plus la mbokkatul ak léegi. parce que moi je cherche plus. à me faire connaître. xam nga au début peut-être chercher à coller ton avec la commune. da nga doon bëgg ut sa euh, lépp lu nit def je le dis à beaucoup de politiciens man Grand Yoff dans tous les secteurs je suis très bon n'est-ce pas des je rencontre des jeunes filles yoo xam ne ils avaient perdu de l'espoir à IPE, ici à Graille, face à Samy Municipal, mmh. que j'ai payé des formations, ils sont devenus directrices. Ils me voient, ils pleurent en, entre mes mains. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est le sens de la politique pour mmh. moi. Hmm. C'est d'abonner quelque chose de positif. Hein? Maintenant, je dis, je, le populisme, ça y est. J'ai fait beaucoup de bruit avant 2014, beaucoup de tintamarre, et les résultats que j'attendais ci élection yooyu n'ont pas suivi mm -hmm. et je dis maintenant il faut qu'on change de cap mhm. il faut plus chercher à faire du bruit à taper maa jox kii nii maa dimbali nii maa def mais ce que je fais maintenant et être beaucoup plus conséquent avec euh, les efforts que nous faisons, mmh. voir là où mettre <laughs> les billes. Mmh. Et mhm. c'est l'espérance, ça doit jouer à quelque chose. Okay. 2006 à nous, c'est déjà des années mmh. avec qui je suis sur le terrain. Mhm. Mhm. alors président Moussa Fall ba tey Grand Yoff tey li nga xam ni moom mooy jëm ñu ngi jëm ci nawet. te ku ne nawet boo waxee ndoxu taw Grand Yoff ngay tudd mën meek problème yi ndax xam tey euh, foofu tey euh, bu tawee mën ngeen am yaakaar ne du taa. Non, vous avez déjà touché les deux problèmes, véritables problèmes, où c'est pas la commune qui le gère directement. C'est un problème d'assainissement. On a un problème de problème de sécurité, mhm. ça c'est l'État. Mhm. Je dis la commune ne doit pas croiser les bras. Mhm. Nous, on a des solutions pour la Est-ce que vous avez eu à rencontrer la mairie pour une non, mais leur solution moi, non, moi, moi je en après les résultats, Khalifa Sall a lancé un message. Il dit que nañ, dañuy talal loxo doomu grand Par la suite, quelques semaines après, j'ai vu au niveau de Rufusque, il y a eu les assises de Rufusque. Il y a eu tous les partis, les opposants, tout le monde, et ils avaient parrainé ça à Youssou et tout ça. Mm -hmm. Mais je dis, on doit recopier comme ça. Maintenant, les élections sont derrière nous. Khalifa a gagné, il a mis Pamodjob en maire. Mais à chaque fois, j'ai théorisé les assises de Grand Il faut qu'on essaie de se mettre à, sur le tour on enlève les trucs partisans, on règle le problème des grands efforts, n'est-ce pas mhm. Et je dis, même autant j'avais dit, on a un grand frère qui est là, Boubacar Kamara, je vais le citer, mmh. je on, peut le mettre pareil, on, s'assoit sur une table, on discute, on règle le problème. J'ai fait plusieurs de suite, parce que ça, c'est le maire qui devait prendre cette initiative-là. Mhm. Mhm. Donc maintenant, ça n'a pas été n'est-ce pas Donc, le problème d'assainissement à le président a fait des efforts. en 2012 2013 Grand Yoff souffrait parce que su tawoon dañuy toog ay weer ay bis yoo xam ne ndox mi day des mais après les investissements le président a mis à Grand Yoff dana taw ndox mi dana taa mais y a le euh, l'infrastructure que le président a mis là mhm. su tawee près de quinze minutes trente minutes dina dem. waaw mais dina des ay ndox ci alentour quartier yi wër canal bi. Mhm. parce que quartier yooyu dañuy xaw a suufee. Mhm. kër yi dañuy suufee ndox mi dina des ci biir. mais donc maintenant Si vous parcourez Grave présentement, ça coule, l'eau coule de partout. C'est un problème de eau usée, c'est pas eau pluviale. ak ONAS bi. <laughs> ONAS la mhm. eau usée vous prenez marché monument nga jaar police ba Grand Yoff ci wow nga ñëw Brèche Dorée bi côté Yacine Coiffure Brèche Dorée marché monument ba marché ba police ndox maa ngi fa présentement ça c'est de l'eau usée dugg biir Arafat donc il a un problème crucial c'est l'ONAS qui doit gérer ça. Mhm. mais je pense que euh, tout si on cherche une solution, mmh. on doit euh, apporter un plaidoyer au sommet. Mhm. On a un député à Graef mm -hmm. porte ce combat au niveau de l'État. Est-ce que pour que pour que état bi. Mhm. waaw mais xam nga bu ñu songoon ñun Graef yëpp ànd. yëkkatandoo yuuxandoo indi solution wone ne Graef lii mooy problème bi tey jii dinañ mën a te bon j'ai j'ai reçu euh, dimanche dernier un des responsables qui est dans dans la zone. qui habite HM Graef, qui, qui travaille à l'ONAS, n'est-ce pas on a, on a échangé beaucoup. Et lui aussi, il dit vraiment, moi, je suis un citoyen. Je veux qu'ensemble, qu'on essaie de voir comment gérer ce problème-là. Mm -hmm. Mais donc, qu'on est en train de chercher des solutions mhm. pour que des solutions, c'est-à-dire, on doit faire l'état des lieux d'abord. Mm des lieux, avoir un projet clair. On connaît les, les points bas à Graef. S'il y a la pluie, c'est Brioche Dorée, c'est Sachon-Chel-Padois, c'est entre Céteau et Talibou Dabo ça c'est les points ba où su tawee ndox doot ndox bi day fes mhm. on a ces ces on on a on a ces problèmes mhm. doit avoir un projet le la mairie quand on <laughs> était à la mairie mhm. suñu fa nekkoon dañu ut un projet avoir des des architectes avoir des techniciens pour avoir un projet pour état Grand Yoff lii mooy suñu problème comme ñun nekkuñu ko on a un député où on va aller à l'état pour dire voilà nos problèmes il faut que ngeen dugal priorité mu doon Grand Yoff mhm. ñu régler problème assainissement parce que tey mhm. euh, en 2012 ko bëggee régler Nord Foire Ouest Foire amatul ndox il en la Foire était inondée Cissesse était inondée mhm. Ouest Foire Nord Foire était inondée mais ce problème est réglé pourquoi Grand Yoff reste à cet donc je pense que waaw dañu seetaan donc noor ak nawet Grand Yoff day am ndox voilà les deux problèmes cruciaux mais tu poses un autre problème il y cadre de y' a pas amul amul amul jardin. Mhm. amul fi nga noppaloo y' a rien. Grand Yoff le l' et est à reprendre parce que ñun dañu war a am ay jardin am ay féexlukaay avoir des terrains de basket avant un cadre ou bien. moi je dis on avait même des projets en 2014 on avait même discuté déjà avec euh, des responsables mm -hmm. quand vous quittez la station totale de Liberté 6 en face ñiy def pépinière di bay ay naana mhm. mais ñun li en face euh, saveur d'Asie mhm. en Bourguiba am ay nandoos wala yu nekk biir euh, euh, euh, feneen mhm. mais ñun foofu war nañ ko mën a encadrer defar ko ba mu baax tout le long qui la foire HLM Podor ba ñëw HLM Podor HLM Grand Yoff ñu def ay xadara tous ces zones là pouvaient être aménagées les enfants ils payent à Yao Silim ou trente mille francs pour jouer au foot ces espaces là on pouvait mettre d'une terre gazonnée gazonnée mettre la lumière mhm. même la commune <laughs> peut gagner quelque chose là-bas au lieu que ñu dem fay Yaya Soulim ou Dakar Sacré-Cœur trente mille ou quoi les gens les gosses là-bas HLM Grand F ou à Grand F ils jusqu'à deux heures du matin trois heures du matin à Yaya Soulim et tout ça mais ces zones-là pouvaient être aménagées donc ça, mhm. ce pas pour qu'il des espaces bon vous savez le cadre de vie oh, ils déguerpissement mais toujours euh, la situation Le, toujours non on peut occupation bi dañu ko war a réorganiser d'une manière ou peut-être euh, et euh, la mairie son premier combat il doit savoir kan ak kan ñooy nelaw Grand Yoff la population de Grand Yoff mhm. gox bu nekk 66 quartiers je dis c'est plus Grand Yoff on a des impairs mmh. vous prenez le rond-point Liberté 6 vous allez jusqu'à l'immeuble tout ce que vous avez Euh, c'est la limite, c'est ça. Rond-point, vous prenez EMG, e EMG, mhm. vous venez jusqu'à Liberté 6, jusqu'à VDN, CPI, Liberté et tout ça. Mais ils sont dans la commune de Grave, mais ils ne votent pas à Grave. Est-ce que nous savons Ils sont dans la commune de Grave, ils ne votent pas à Grave. Tout ça, il faut repenser mhm. l'environnement à Grave. Mhm. Parce que je pense que Grave, c'est une commune qui n'est pas pauvre. Le budget de Grave il <laughs> y a des départements où le budget de Grand Yoff dépasse carrément ses ses ses, donc Grand Yoff c'est pas une petite commune. Okay. il beaucoup de choses à faire. Mhm. ci wàllum pàcc santé bi gis nañ ni am na lu ñu war a yokk te poste de santé euh, ci diwaanu Grand Yoff bien vrai que am nañ maternité bu ñu doon gis ñu koy tabax foofu. Mhm. Euh, fu mu toll wàllum pàcc mi tey ci diwaanu Grand Yoff. bon li mu faj si on parle d' euh, infrastructure on doit saluer ce que le maire a mhm. koy rafetlu. parce que tamit euh, lu ne fang kenn du ko dire n'est-ce pas. Mm -hmm. il a repris la maternité de Grand Yoff. Mm -hmm. c'est déjà un peut-être ñu ko fi jiitu suñ ko defoon keneen bu fu ñëwee tamit dina mun a def leneen lu ëpp leneen dina def leneen lu dul loolu quoi mhm. n'est-ce pas. Mhm. waaw mais moi je dis euh, vraiment Grand Yoff ce que nous attendons euh, que ça le foyer de Grand Yoff la maternité et tout ça. on parle d'investissement communal. Mm -hmm. Ça, c'est l'argent de la commune, quoi. N'est-ce pas? On combien nous a coûté la maternité. amul leen ci non non non c'est-à-dire quand vous traversez. Mhm. un chantier de l'État il y a un tableau qui définit c'est tel architecte c'est tel cabinet et on nous dit la durée des travaux c'est tel temps et on nous dit le montant de ces infrastructures va nous coûter comme ça on dit le BRT c'est 300 milliards on nous dit terre c'est milliards mais personne ne peut vous dire la maternité nous a coûté combien. non non non on la maternité on a équipé la maternité, mais les grands FA ne peuvent pas se vous dire cet investissement nous le coût. Mmh. Le coût de cette foyer, on ne peut pas nous dire. C'est ça, voilà la transparence. Moi, en tant que grand fois si je fais un cumul de 7 ans, 2014 à nos jours, si je prends un budget de 2 milliards, mmh. de 2 milliards, sur 700, milliards que la commune a géré. C'est des budgets prévisionnels. Tu peux avoir 2 milliards 500 ou milliards, euh, peut-être. Mhm. un budget, c'est pas forcément tu vas atteindre ce budget. C'est de la prévision. Mais quand on prend, on fait un calcul, je dis, c'est plus de 12 milliards que la mairie a géré. On nous dira que a transféré des charges parce que la ville, c'est eux qui s'occupaient les salaires et tout ça. Mais je dis, on a une commune très riche. Mmh. On nous dit, mais non, si je fais un bilan, mmh. je fais un bilan scientifique. Mmh. Je dis, la mairie qui a englouti 14 ou 12 milliards de budget pendant ces 7 ans. olof fukki milliards ak ñaar u ñeent. bu ma calculer budget Grand Yoff bu ñu tàmbalee ba léegi. mais bu ci liggéey benn maternité ak benn foyer dina xam ñaata lay jar dinaa xam mais fi toll nii est que foyer bi 1 milliard la jar. bu dee euh, foyer bi 1 milliard bu dee maternité 1 milliard ma ne waa fukki milliards yëpp xanaa dafa dem ci fonctionnement. et donc c'est ça le problème donc voilà voilà voilà un bilan comment ju juge un bilan. Mhm. mais du ma ne dafa fi dara gis naa foyer bu ñuy waaje bu ñuy tabax. Mhm. gis naa matériel bu ñu defar ñu koy rafetlu. parce que tamit loolu déjà mais waruñu leen ni koppar guñ ci dugal. non kenn man de ma ko. donc masuma ko dégg. donc est que léegi lan lañ mën a est-ce que duñu wax gestion transparence ci biir euh, ndax lu leer matériel nañ ko ndax booy defar dara itam mën nga joxe ko koppar gi. waaw mais loolu loolu la ñuy xaar du ma marché bi jaarul yoon parce que marché bi ñu koy lancé DSMP la jaar. jaar na yoon. mais ñun Grand Yoff war nañu mun a xam. ñaata la jar ñaata la jar. du <laughs> dëgg boo ma ne liggéey naa maternité dama la ñaata nga liggéey su dee 2000 francs nga ci def mag bind 2000 foyer bi ñaata nga def bu dee 3000 ma def 3000 muy 5000. Mhm. ma xool yow ñaata la joxoon dépense. parce yow bu ma la joxee dépense tey duma xaar ceebu kecax damay xaar place u ginaar bu baax bu ñu orné donc ñun loolu mooy suñu problème man su may jugé bilan maire mhm. damay jugé ci li ñu ko jox ci koppar mhm. ak lan la investir ci gox bi mhm. tabax naa maternité tabax naa foyer noo loolu doyu ma yow ñaata nga yoroon sa loxo ak lan nga tabax ma xool lan moo des ci sa loxo ndax loolu yëpp da nga ko dugal sa bopp yow parce que yow buñ la dénkee fukki milliards nga jël ñaari milliards yi jox waa Grand Yoff juróom-ñetti milliards yëpp nga yoral ko sa bopp daf ko fonctionnement mhm. loolu du ma du du ma gis bilan bu positif mhm. te ma gis Grand Yoff ba léegi mbëri ba gis association yaa ngi jooy mbër yaa ngi jooy mhm. musicien yaa ngi jooy je veux liggéey mu am un budget équilibré li nga xam ne tey dañ ko voté comme budget mu dem ci maire yi mu xam ne ay rubrique la lii war a dem ci social li war a dem ci sport li war a dem ci artistes lii war a dem ci lii war a dem social n'est-ce tey jii sax war nañu mun a am doomu Grand feebar dem ci CTO sax maire jàppale ko ci ci ci bi parce que ville de Dakar am na foofu. Mhm. ville de Dakar boo feebaree boo demee mën leen la jàppale ba ay deux cent cinquante mille trois cent mille. Mhm. Euh, ville bi la. léegi donc jàpp naa ne lu tamit war nañu ko def. léegi président président Moussa Fall boo doon noté tey mairie bi de 2014 euh, bi seen bilan lan la. non man nag du mënu leen ma noté man euh, Grand Yoff ñooy noté maire parce que comme Grand Yoff man dama amoon programme indi ko. xalifa Sall am programme indi ko ni jàpp ne programme mu moom moo leen doy ñi votel ko grand fa yi ñoo war a xam ndax la leen xalifa liggéey. ndax doy na ci doxalin bi mais man wax scientifiquement am na tontu bu ma la def. Mhm. dama ne man la mu fa jot a def maire dama koy rafetlu. parce que tey balaa muy ñëw maternité bi ku fa duggoon doo ko mën a xool. Mhm. dem na bu buy taw day daanu ni coupé ndox mi def lépp. mais tey bi mu tabax na maternité bu bees. Mhm. kenn mënu ko weddi équipé na ko defar na foyer mi ngi koy mi ngi koy defaraat. kenn mënu ko weddi du ma leen defu fi dara. Mhm. mais dama ne lam yoroon ak la mu def man ci laay xayma liggéeyam. Mhm. bis bu ma xamee euh, lam def ca maternité ba ci koppar ca équipement. Mhm. ca tabax lam def ci foyer ba ma xam lam yoroon ci juróom-ñaari at yi ah ci laay soog a xam liggéeyam. ndax fan laa ko mën a juger mais présentement askan wi ñooy xam ndax maire bi ñu teg ndax xalifa lañu faloon léegi conseil municipal moo fal mu Pape Modiop c'est le maire lu Pape Madiop liggéey askan wi koy jugé mais man mënu ma ne def na fi wala defu fi mais gis naa ne de wax dëgg yàlla tabax na maternité équipé na ko. mu ngi tabax foyer Grand Yoff mu ngi koy defal tey loolu tamit dañ koy rafetlu parce que tey bu ko fi fekkoon yaakaar naa ne dina def leneen lu loolu mais ñaar yooyu rek nga ñu fi limal de. waaw loolu laa gis ah. loolu laa gis ak euh, état civil bu ñu wax de tabax nañ ko quoi euh, état civil bi nekk foofu ci wetu PAMECAS bi loolu la ñuy wax ne defar nañ ko fi quoi. te Grand Yoff gis nga situation bi nu mu mel. Euh, vraiment boo xoolee cadre de vie bi boo xoolee askan wi li ñuy ñaxtu tey les artistes parce que loolu ci culture dafa bokk ci compétence yi ñu joxe. Mhm. n'est-ce tey artistes yi waroon nañu gis seen bopp ci ci commune bi war nañu am ay projet de musical wala artistes yi war a dem monnaie seen terre affaire ñu jàppale leen. Mhm. côté éducation bourse yi war na leen mën a jàppale n'est-ce pas côté sport bi ASC yi war nañ mën a jot seen i subvention annuellement. Mhm. Euh, zone bi di jot seen subvention normal n'est-ce pas ak leneen ak leneen yoo xam ne tey tey askan wi côté social du tabaski ak korité rek nit dina nekk ci situation feebar hmm. war a am ku ko assister commune war ko assister te lu yëpp gisuñu day am ay manquement ay bonne volonté ñoo koy def ci commune bi hmm. donc gis nañ ne wax dëgg yàlla ci côté yooyu man li ma jàpp ak li ma xalaat dama dégg hmm. mooy ñoom dañuy jël li ñu waroon def ci sport li ñu waroon def ci culture li ñu waroon def yëpp ñi bàyyi ko concentré pour tabax maternité ak foyer mooy man loolu mooy sama priorité joxe subvention du sama priorité jàppale mbëru làmb du sama priorité. <laughs> jàppale musicien du sama priorité. ku <laughs> feebar du sama priorité mais naa fexe rek. <laughs> ba tabax maternité tabax askan loolu du budget bu équilibré. su ma la déggee mooy euh, maire bi dafa xaw a lajj. non du ma ne dafa lajj ah du ma ne dafa lajj am na lu ñu fi def mais tey ñun jàpp nañ ne Grand Yoff war na dépasser fi mu toll nii te ñun ci loolu lañ nekk. ci loolu la ñuy tàllal suñu loxo doomu yëpp ñuy ànd taxaw xam nga liggéey bi fi mu toll Grand Yoff waratuñu toll foo xam ne dañuy jox mairie bi bàyyi kook benn loxo tey jii boo nee Grand Yoff da ngay wax le maire Pama Diop. Mhm. mënoo citer keneen soo gisee tey plateforme bi juddu dañuy wax ne léegi commune. équipe moo ko war a yor. ci loolu lañ jëm. waaw équipe moo ko mën a yor. Mhm. léegi ba tax na euh, Moussa Fall ngeen taxaw ak seen i ñooñ ñu bëri ay leader wax nga ko sànq. Mhm. taxawal li nga xam ni moom moo jëm ci plateforme jàppoo liggéey Grand Yoff. lan moo tax a jug juñu nga ko sànq lan hmm. moo tax a jug euh, plateforme bi ak fan ngeen nara jëm. li tax plateforme bi jóg mooy ñi ko sos daanaka ñun ñëpp dañ nekkoon ci benn cadre politique mooy Benno Bokk Yaakaar. lan ngeen jóge fa. noyau bi nga xam ne moo formé plateforme jàppoo liggéey Grand Yoff. Hmm. Euh, ñi ci nekk ñëpp daanaka 2019 président de la république lañ jàppale woon. Hmm. waaw président nag am na ñu ko jàppale woon ci ay façon am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi woon carrément ci cadre Benno mhm. bien que Benno bi mun nañ ci waxaat lu bëri bëri mhm. li tax ñu génn wax nañ ko mooy Benno dafa nekk cadre politique boo xam ne mhm. mi ngi fi nekk mais Benno dafa exister que de nom ah à Grand Yoff parce que structure mooy boo xam ne dafa am coordonnateur am ay structure ñi am instance di daje di réunion mais amul Grand Yoff amul benn instance boo xam ne avant élection 2019 ou après élection 2019 fukk structure boobu toogee ñu ne diw mooy coordonnateur Benno Benno Grand Grand amu fa. Mhm. n'est-ce pas te ñun juguñu rek mbir créer affaire bi parce que en 2018 ñun suñu bopp apéris yi ko waroon dox doxuñu ko ñun alliés yi am na ay jéego yu ñu dox parce que les apéris à Grand Yoff politiquement ils sont pas ensemble ñoom ku ci nekk da yore sa coordination du gérer. Mhm. y nombre de responsables nombre de coordination nombre de sièges à peu près à Grand Yoff jubóowuñu dox nañ ci ay tànk fexe nañ ñun sol suñu dàll dem seeti responsable affaire yëpp seeti allié yëpp dajale leen benn bis ñu am réunion fële ci euh, siège u ànd jëf en face euh, stade amitié mhm. dafa réunion bu mag responsable yëpp ñëw par la suite loolu dafa capoté parce que c'était un samedi le lundi y avait un bu génn euh, observateur yàq mbir moomu parce que am na ku génne benn communiqué mu mel ne dafa bëgg a accaparer wu mbir mi mhm. mu xaw indi ay jiixi jaaxa mbir mi tekk ci suuf bi ñu toogee ñetti weer am na ñu doxaat ay jéego dajale tous les responsables de l'APR à Fun City tous les responsables amul kenn ku manqué Fun City ñu ne leen il faut être ensemble parce ñun njàmbaas lañ ci sër bi pour que sër bi a njàmbaas day nekk benn couleur mhm. mais mënu nekk xam nga man tey su ma ñëwoon daw ci ginnaaw Cheikh Bakhoum wala ci ginnaaw Adama Faye wala ci ginnaaw Mora Cissé dañuy wax Moussa Fall mi ngi jàppale Adama Faye mi ngi jàppale Cheikh Bakhoum mi ngi jàppale ñun ay responsable lañ dañu yore ay cadre politique ñun ci cadre politique rek lañ mën a évoluer donc su bennoo amoon jàppoo liggéey Grand Yoff du exister bennoo bu doon dox comme ni mu war a doxee am ni mu war a am doxee mu am instance formelle buy dox mu am coordonnateur am cadre boo xam ne ñun ay cadre politique ay dañu am ay organisation politique ñu war a épanouir dañu war a épanouir dans un cadre mais tey ñun ñu mun jóg ne maa ngi daw nekk ci ginnaaw Adama Faye wala nekk ci ginnaaw Cheikh Ba wala Cheikh Diane Diatta def loolu wala Omar Faye def ñëpp ay responsable lañ donc cadre politique bu doon dox bennoo bokk yaakaar bu doxoon carrément jàppoo du am c'est que sa Benno n'existe pas. donc ñun nag ñu dem ci élection présidentielle dans un rang divisé. Mmh. il y avait deux coordinations. l'un juré par Adama Faye l'autre juré par Cheikh Bakhoum les moyens de campagne ñoom ñaar ñoo ko yor n'est-ce pas ñii ànd nañ kii kii ànd nañ kële ñun même alliés sax on était impacté dans cette division. division ñun alliés sax dañuy division am na alliés ànd ak Cheikh am na yu ànd ak truc mais après les élections présidentielles nag nous avons pris encore. c'était les organisations locales devaient s'organiser en 2019 juin. Mhm. ñun on s'est vu ñu ne maintenant ñun vraiment il faut que ñu toog xoolaat suñu ce benno là y a pas un cadre le benno euh, ne se réunit pas. Mhm. y a pas de structure qui fonctionne. y a pas c'est pas structuré y a pas de coordonnateur y a rien du tout mais nous on est là. on a des organisations politiques et on doit bouger on doit s'épanouir. Mhm. Euh, on n'a pas de cadre. si on continue comme ça. élection présidentielle amuloon problème parce que on travaille pour une seule personne c'est Macky Sall. Mhm. bu ñu diviser képp ku liggéey Macky Sall ngay xëppal mais élection locale yi di ñëw du demee noonu. ku nekk sa bopp waaw ku nekk sa bopp ngay liggéey. Mhm. donc ñun naka la ñu mun def pour que ñun ñi nga xam ne déjà war nañu mun a waxtaan ñu waxtaan on a commencé. à parler avec les présidents de mouvement mhm. parce que ils sont beaucoup plus de liberté ki nekk ci parti euh, peut-être dana maa ngi xaar sama parti donc ñi ko sos daal ay président dajee di xalaat xalaat boobu ba wax dëgg yàlla euh, mbir mi taxaw ñi xam ne tey dañuy bind jàppoo liggéey Grand Yoff mhm. bi ñu ko defee tamit am na parti yu bëri yoo xam ne sax jot nañu toog ak ñoom parce que avant ñu koy lancé jot nañu waxtaan ak suñuy naataangoo yu nekk ci parti politique yi recevoir nañu waa PIT Ibrahima Gueye moo teewoon mhm. waa LDMPT Diatta moo teew ak Bathily URD euh, Thierno Balde moo teewoon ñoom ñëpp ñu réunir waxtaan leen après on a réussi la section Rewmi de Grand Yoff on les a waxtaan ak ñoom mais kon nekk wax ñu sa xalaat pour que ñun daal bëgg nañu mbir mi bu ñu koy euh, lancé. Mhm. kenn ku nekk Grand Yoff nga yëg ko sa bopp mhm. donc maintenant ñi nga xam ne tey am na ñu bëri ñu seeti woon mais ñoom ils se di dit ils vont être candidats te ñun on s'était dit képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci plateforme bi doo déclarer ne que candidat nga sa candidature nga ñëw ñi ànd ànd nawle mhm. say ambition personnelle nga tegagum ci suuf mais danañ am candidat mais suñu àndee sur l' essentiel essayer de fédérer les forces et pour xam ne la l'histoire nous a donné raison euh, les élections qui vont venir ce seront plus des raisons de parti mmh. c'est pas parce que APR nga bokk waa Grand Yoff ne lay fal c'est pas que PDS nga bokk parce que léegi c'est élection directe la mhm. donc nañ ci ñëw askan wi mooy fal mhm. maire léegi c'est pas parce que dañ lay fal du parti mooy fal amul benn parti bu nekk Grand Yoff bu mun a fal maire amuñu militants yi toll noonu askan wi ñooy fal maire donc léegi élection directe la léegi ki ñuy taf tête de liste askan wi ñooy xool diw mooy jàll yow la yow ban taxawaay nga am ci Grand ban xam nga am parce que il faut qu'on dégage un profil parce que ñu ngi jëm ci deuxième phase acte 3 2014 c'est la première phase on a transféré beaucoup de compétences aux communes et les communes ñu ngi doon wax ne les moyens n'ont pas suivi ah maintenant ci deuxième phase acte 3 les moyens peut-être ñu ngi ci état da ci liggéey pour gën a dooleel collectivités locales yi ci moyen on a besoin de management c'est pas parce que tu fais des actions sociales par-ci, par-là, par Massamba, par Demba, que tu dis oui, je vais être maire. Non, il faut qu'on ait non, il faut qu'on il faut profil mhm. pour être Il faut qu'on ait une équipe pour accompagner ce futur maire. Mhm. Il faut qu'on ait mhm. Il dem ci askan wi déglu leen lu ñu xam-xam Grand Yoff waa Grand Yoff ñoo ñu gën a xam Grand Yoff. bu leen dégloo. incorporer ñun suñu luy xalaat ak ñoom seen liñ ñuy wax. bu boobaa ñun danay xam. Euh, ban programme la ñuy def donc ñun suñu démarche. Mhm. mooy candidat bi moo nekk troisième position une équipe un programme et un candidat. Mhm. le candidat ne peut pas être même ses membres qui ont formé qui ont eu l'initiative de créer cette plateforme là. Mhm. candidat bi mun na bañ a jógee foofu. candidat bi mun na am kii adhéré suba mooy doon candidat parce que on tend la mais à tout Grand Yoff. on dit on enlève dañu dindi mbiru parti politique. 96. L'acte 2 de la décentralisation, c'est en 96, où on dit commune d'arrondissement. Le premier maire à Grand c'est Khalifa Sall. Mm-hmm. Il est maire. Après, il a mis, il a fait 96-2000. Mm-hmm. C'est le Parti Socialiste. Mmh. Il a été ministre du Commerce. Grand avait tous ses avantages pour décoller. 2001, le PDS est venu. Par Mamourgué maire. C'est le Parti démocratique sénégalais qui a gagné. Grand n'a pas bougé. 2009 Khalifa revient deuxième mandat il met Mamadou Mbaye PS ça n'a pas bougé. Mm -hmm. il revient en 2014 il gagne il met Pape Modiop Grand F ne bouge pas on dit ça suffit maintenant nous on va faire le focus li ñu ëpp solo ci ñun suñu taxawaay mooy sensibiliser la population pour que dire la commune peut se développer si vous prenez en charge vos préoccupations si l'action citoyenne action citoyenne la ñuy jéem a xeex. et on a pris un exemple Covid 19 bu mu amee à Grand Yoff on a été l'initiateur et je félicite la zone 7B le maire et professeur Djibi Diakhaté nawetaan Covid. parce que il fallait faire face à cette situation sanitaire par des relais communautaires. et je pense que ñun suñu problème mooy la liste qu'on veut présenter ci élection yi di ñëw ce sera une liste communautaire parce que on dit que. citoyens yi ñoo mën a jël en charge seen développement localité. Mhm. on doit plus attendre les politiques pour dire que fal leen ma ku ñëw ci sa kër ne la salaamaaleykum dama bëgg nga fal ma maire kooku déjà am na lu mu bëgg moom <laughs> bëgg-bëggam bëgg lay dox. waaw mais dañu bëgg ki nga xam ne bu ñëwee dafa ne ñun kat damay xool ñi nga xam ne mën nañ joxante loxo ñu ànd tabax Grand Yoff mhm. parce que équipe boo ko mën defar gis nga compétence boo gis boo xam ne jox nañ ko commune. Mhm. am na ay kàngam yu nekk Grand Yoff ñooñu tey bu ñu leen wooyee ñi dajale leen. un homme de culture un homme de sérail qui mmh. est mm. dans l'éducation il y a combien d'inspecteurs dans l'éducation il y a combien de commissaires de police en retraite à Grand Yoff on parle de sécurité mmh. il y a combien d'hommes de culture à Grand Yoff tous ces gens-là s'ils sont dans le conseil municipal ils ont apporté leur expertise mais on ne doit plus laisser Grand Yoff entre les mains d'une personne mm-hmm. et je pense que ñun suñu combat c'est vraiment ñi bàyyi mbiru parti politique ñi jiital citoyenneté ñi woo citoyen parce que Grand Yoff dañu toll foo xam ne dañu war a fal dañu war a tànn dañ tànn équipe boo xam ne bu ñu ko joxee Grand Yoff juróomi at yi Grand Yoff dina soppeeku. Mhm. parce que bu dee ay possibilité ay moyen am na Grand Yoff. c'est pas une commune pauvre je l'ai dit car c'est budget qui a à besoin de de cinq ou trois milliards. Mm -hmm. n'est-ce pas et que je pense que nous qui avons l'expérience de la de mobilisation des recettes. Mm -hmm. on sait que Grand Yoff peut même avoir quatre à cinq milliards de budget. Mhm. léegi ci wàll woowu léegi yéen euh, élection yi ndaxam bu leen ñëwee euh, APR ngeen di àndal parti au pouvoir wala opposition bi ngeen di àndal wala da ngeen di demal seen bopp. non ñun fi ñu toll nii ñun ñëpp Macky Sall lañ jàppale woon nekk ci benn Bokk Yaakaar ñun ñëpp dañu démissionné ci benn Bokk Yaakaar li tax ñu démissionné ci Benno Bokk Yaakaar parce que dañuy toll ci waxtu boo xam ne il fallait que politiquement ñun ñu bouger ñi am ay activités mmh. te man awma sañ-sañ kenn amul sañ-sañ ci suñ biir di woote. ci turu benn bokk yaakaar di bouger xam nga on a besoin d'avoir une respiration politique on doit respirer te le cadre politique bi nekkoon ci ñun mooy la benn bokk yaakaar dans ce cadre là si on restait on pouvait pas bouger si on restait déjà Macky Sall gën nañu tënk depuis Kaffrine il dit que léegi toog leen kenn ku nekk sa gox. man maay tànn sama maire. et ça c'est pas une bonne communication président mënoon na wax ne gox bu nekk dem leen ngeen seet ki ngeen di jël boo leen jubawul nag ma ñëw def arbitrage mais sur les 550 communes. Macky Sall mooy nañ toog képp ku bokk benn bokk yaakaar bokk APR toogal nga xaar président tànnal la sa maire xamuñu nag ci ban choix la koy def xamuñu non dañu xamul ci bu koy tànn ci ban critère la koy def mhm. <laughs> ban critère lay tànnee n'est-ce pas parce que nous on est en on a on a politique c'est ici Macky Sall a gagné Grand Yoff c'est pas les partis c'est les mouvements vous savez il nouvelle lecture politique il faut une nouvelle stratégie en politique gis nga c'est les xam nga les mouvements chaque mouvement s'identifie à une localité Vous allez aux parcelles. Le mouvement de Moussa s'arrête aux parcelles. N'est-ce pas Quand le président dit j'ai attrapé un gros, gros poisson, c'est au, au qu'il a attrapé. Qu'est-ce que Moussa Sy pèse à Grand Dakar ou à Wakam Il pèse rien là-bas. Il pèse quelque chose à, à, aux, Le mouvement Sénégal Unité, il pèse plus à Grand D'autres mouvements qui sont dans cette plateforme, ils s'identifient à une localité. Les mouvements s'identifient à une localité. Moi, en permanence avec les populations à quand tu es dans And Jëf ou dans PIT quand tu as est facile d'aller voir le chef de parti mais le président de mouvement il tape à la porte de Cheikh Tidiane il dit j'ai pas de dépense j'ai un ordonnance je tape Ibou Koné ou Gandou ou Omar Faye tape sa bërkër ne ko dama feebar dimbali ma ci lii il sont en contact direct avec le truc moi j'ai travaillé avec Cheikh Kanté qui gérait la plateforme des mouvements politiques si Macky a gagné ces élections 2019 c'est à cause c'est Mhm. certaines parties à Grand Yoff. Mhm. Moi, depuis que j'ai fait la politique en 2016, j'ai de ces partis, je n'ai vu aucune de ces activités. Toute activité politique à Grand Yoff, c'est des mouvements politiques. je pouvais lister les noms de partis à Grand Yoff. je n'ai rien contre ces partis je ne les pas parce que bugguma tooñ mhm. mais tey li ci ëpp tey mënuma gis parti bu organiser activité politique publique un meeting ou une assemblée générale ou des proximités à Grand Yoff c'est souvent c'est si Macky a gagné mhm. c'est 80 pour cent c'est les mouvements et que ça les élections qui vont venir vont le démontrer élection yooyu sax wax nga ko sànq mode d'élection bi dafay changer bu njëkkoon dañuy liste la ñuy fal quatrième eh, nit ga mën na ñëw nekk maire tey léegi dafa changer ndaxam tey loolu lu baax la tey ci askan wi mais lu baax la parce que dafa amoon euh, lu ci bëri loo xam ne dañ ko doon ñaawlu nit day jiite liste campagne ñi fal ko nit yore xaalis ñëw jënd ay conseil am na koo xam ne sax moom dafa jël conseil yóbbu leen hôtel tëj leen bis bi ñu waroon wootee suba ñu war a wootee lundi dimanche bi ñoom ñëpp otel la fanaan <laughs> mu tëj leen ànd ak ñoom parce que bëgguñu entre temps kenn changé sa sa mbir léegi nag mbir mi jeex na dañuy fal nit ñu ñëw ba ci élection ñu fal koo xam ne population bi xamuñu ko. te bu boobaa nag lii problème mooy politique bu mu teg population bi duñu ñu suivre mais léegi nag askan wi bu ñu tànnee seen candidat te ñu xam ne tànn nag du lu yomb. Mm-hmm. ñi bañ ko tànn parce que nit may na ma dix mille wala may na ma vingt mille wala may na ma lii dañu war a tànn nit koo xam ne waxatuñu doomu Grand Yoff parce que doomu Grand Yoff moo nekk ci commune bi mbiru doomu Grand Yoff dañ ko bàyyi <laughs> non non non loolu moom c'est un faux débat. wooy kii doomu Grand Yoff non Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk xalifa Sall ku ko gën a nekk doomu Grand fal nañ ko falaat ko falaat ko ñetti yoon ku gën a nekk doomu Grand tey bu Grand Yoff meloon comme nu mel ñun ñëpp du ñu nekk fii di laajaat la la du dëgg ah ki fa toog doomu Grand Yoff la <laughs> du dëgg waaw kon doomu Grand Yoff amatul solo. Mhm. li am solo mooy nañu xool équipe boo xam ne buñ ko xoolee liste bi danañ ci gis ay nit yoo xam ne ñii ay borom xam-xam lañ ñii kenn ku ci nekk mënal nga sa bopp dara parce que tey boo nekkee conseil municipal. nañ ko doon doxalee ñëw ci mairie bi rek di xaar ñu may la secours wala am problème ñëw dis maire bi ñu lay jàppale ci comme ça non non il faut que nit ñi nekk ci conseil municipal bi mën seen bopp. ñu mhm. xiifuñu maruñu bu ñu toogee ci mairie bi dañuy xam ne kenn ku ci nekk jàpp naa ne li jëmal Grand Yoff kanam moom nga gis te ñii ma àndal man candidat la woon 2014 waaw tey lan moo ma teroon ma génte samp sama dënd man je suis candidat 2022 bi may nekk candidat ñëw na sama kër toog nañ hôtel waxtaan. mu nekkoon maire de Dakar Mimi Touré yónnee délégation sama kër premier ministre Mimi Touré candidat maire de Dakar candidat man ma samp sama ndënd seen digg nekkoon coordonnateur réew mi Idrissa Seck ne ma ànd la xale fa ma bañ samp sama ndënd xam nga wóoloo naa sama bopp kon man su ma sañoon combat boobu moo gënoon metti combat yi di ñëw képp koo xam ne yaa ngi bëgg takk sa ngemb ki fa nekk maire ak ñi bëgg neen candidat laal yëpp masaguñu am grand combat ci arène bëreeguñu de man au moins am naa bis grand combat. Mhm. ci arène bi. kenn gënuma xam ban ngelaju ak nu ñuy tuusee ak nu ñuy duggee ci arène ak nu ñuy bàkkoo ak nu ñuy tegee sa ndënd xam naa ko ña fa bëgg nekk combat yëpp kenn nekkul grand combat mais dama jàpp ne mhm. boo jógee ci dara da ngay am expérience mhm. synergie des actions des forces mois je dis je m'entête plus à di que Moussa Fall je vais maire non ça sa m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est simplement le développement de Grand Yoff ce qui m'intéresse le plus mhm. et ça guddi gu ne dama koy ñaan franchement li nekk sama xol ak sama yéene ak sama xel waratu waratuma nekk ci biti di wax rek dama war a dugg ci conseil municipal pour indi sama expertise ci Grand Yoff man loolu mooy sama problème. que mhm. ma Samba nekk maire que ma Demba nekk maire c' est pas problème de manque d' ambition ce qui m' intéresse que Grand Yoff change que man l' expertise que j'ai l' expérience que j'ai le carnet d' adresse que j'ai mm -hmm. que man je puisse servir pour Grand Yoff que je sois dans le conseil municipal pour servir Grand Yoff mm -hmm. quoi Si je ne dois pas de maire, si Massamba est maire ou Madame est maire, ça m'importe peu. Mmh. L'essentiel, mouvement Sénégal Sunité doit figurer dans le conseil municipal de Grayoff mmh. parce que nous avons un programme et, des, de l'expérience et beaucoup d'énergie mmh. pour développer notre commune. Et c'est dans ce sens que ci la ñu laaj tàllal suñu loxo bépp doomu Grand Yoff. que ñi ñëw ñi toog waxante dëgg kenn ku nekk xam nga sa bopp sa yenu rek nga bëgg def yenu rek sa way yenu yoo il faut am ku la téye mais soo bëggee yenu <laughs> paano ndox boo ko duyee fees mu fees mënoo ko yenn sa bopp il faut ay nit jàppale la nga yenu ko. Mhm. ñu nag dañu bëgg ñi nga xam ne tey ñoo war a yore Grand Yoff mu doon ay kànga yoo xam ne boo geesoo gis ma Samba gis ma Demba nga ne ah sama xel dal na ñii kat am nañ xam-xam am nañ jaar-jaar te ku leen dénk commune bi ñu mun ko développer. Mhm. donc loolu mooy sama gis-gis ci politique. Mhm. waaw wax dëgg yàlla euh, ñi ngi ci xalaat di ci liggéey te di ci woo doomu yëpp. fan yii passé mhm. ça fait quinze à vingt jours dañu xawoon teg mbir mi ci suuf mhm. mais tey jii su ma fi jógee rek dañu commencé dafa tourner sax Grand Yoff képp koo xam ne yaa ngi doomu Grand Yoff dañ la seet si pour ne la ñun cadre bi moo tax ñu jóg xuluñu ma sàmba xeexuñu ma sàmba ñun c'est un problème de localité c'est un problème local n'est-ce pas moo tax on a créé ce cadre la li ñuy mun a wax ci plateforme jàpp liggéey bu mu nekkoon bennoo mënu ko wax keneen bu nekkoon bennoo mënu ko wax mhm. parce que dañu am cadre boo xam ne on a note on a mis en place une cadre politique mm -hmm. ce pour vraiment pouvoir avoir l'occasion maintenant de pouvoir avoir un levier politique mhm. pour bouger pour dox suñu gox mhm. te Grand Yoff nag on demande ki ko bëgg a jël il faut que am ancrage social ñun Grand dem démb mën nañu ko xam bi marché Grand Yoff di nekk ca canal bi bi ñuy football nawetaan fii ci terrain marché def coupe mission bi zone set amee amul B amul C ñoom jógee Mbaxal ñoom Ablaye Ndiaye ñoom Moustapha Ndiaye jógee Yaraax ñëw fii ñu gérer terrain som jógee fa dam cour sent Maris an di football nawetaan mhm. ñun doomu Grand Yoff lañ mhm. Grand Yoff lépp suñu kanam la ñu fekk Arafat tey bu desee ba Arafat ñun bokk nañ xale yoo xam ne ñoo doon taxaw di dóor xeer ab Abdou Diouf mu jógee benn mission France jow ar benn samedi boobu lépp lu ñëw Imam Ka jàkkaarloog Arafat lépp tegewoon nañ fenêtre yi ak bunt yi ba pare HLM Grand Yoff foofu la waroon yegsi ci imam ka foofu moo waroon nekk tali bi jaar Yacine Thiandoum ci imam imam ka la waroon jaar moo nekk route de ñaay foofu la waroon nekk donc lu jógee route Yacine Thiandoum mhm. ba ñëw ci imam ka loolu yëpp dafa waroon disparaître tey ab Abdou Diouf boo ñëw ñu sànni ko xeer mu yegg na Jean Collin nañu arrêté toj bi mhm. donc ñun dañu yàgg xeexal Grand Yoff mhm. doomu Grand Yoff lañ ñëwuñu pour siif Grand Yoff mais dañu ñëw rek pour am yéene pour Grand nit ñi nee nañ ma xan doo toqi 2006 ba léegi yaa ngi politique doo député doo maire gisuñu ministre bu la jox yaa ngi jël sa liggéey di xañ sa famille di def ma sàmba ma dem ba damay laaj Grand Yoff population bi bougé wuñu képp koo gis mi ngi Grand Yoff tey di def ma ma dem ba ma paate fekk nga ñu def ko ba pare donc ñun luy am solo. Mm-hmm. mooy damay remercier. Mm-hmm. tout les responsables yi nga xam ne ñoo nekk ci plateforme bi ñu ay leaders. Mm-hmm. ku ci mel ne Omar Faye ku ci mel ne Cheikh Tidiane Diatta. Mhm. ku ci mel ne Gandou Sarr. Mhm. Ibou Koné Baara Diop madame euh, ah, ku ci mel ne Lamine Diop waa RCD. Mhm. ñoom ñëpp madame Bari di leen gërëm di leen sant. parce que kenn ku nekk ci ñoom. da nga fàtte sa bopp. ñi ànd joxante loxo pour dem Grand Yoff ci kanam. mu doon ay gor yoo xam ne li ñuy def ci Grand Yoff ma xam ko gis ko keneen xam ko gis ko ma ne leen ñun nañu boole sunu bopp ñu ànd. bu ñu àndee peut-être keneen bu ñu gisee dana mën a yokk suñu biir pour defar Grand Yoff rek moo ñu tax a jóg. di profité nag. Mhm. di gërëm. Mhm. ñi nga xam ne fu ma geestu gis leen xam nga doole jën ndox constance. Mhm. fidélité mooy Sénégal suñu yite. gis nga tey j'étais coordonnateur de 2006 à 2017 ñi ma àndaloon réew mi am na quelques personnes yu détaché dem. mais tey ñi nga xam ne muy jigéen ma lim Adja Ami Kabara mhm. lim ku mel ne ay ablaay Ndiaye lim ku mel ne ay Xaabaan ay Anta Kanji lim naa jigéen yëpp xaaruñu fa ñaar dërëm xaaruñu fa dërëm c'était de fidélité sincérité et je le tout le mouvement de Sénégal suñu unité mhm. di gërëmaat sénégalais yëpp di leen baaluwaat ak mhm. di gërëm tamit euh, sa invitation bi di gërëm tamit émission bi rafetlu nañ ko bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom euh, mbas mi ñuy dugg yàlla suñu borom teggal ñu ko mhm. ñi delluwaat ci jàkk yi ñaan parce que Sénégal loolu mooy suñu doole waaw fi ñu toll nii mesure barrière baax na mais nañ tijjiwaat jàkk yi ut boo xam ne ñëpp dañuy toroxlu parce que mi ngi ci mi ngi ci waaw nañu toroxluwaat am delluwaat suñu bopp ci yàlla baloor ak yàlla suñu boom teg